ba tey ci xëtam gu njëkk ci leeral point net ñu ngi dem fële ca Gambie Adama Barrow perd cinq militants dans un accident fi nga xamante rek mooy Gambie Adama Barrow président ba moom nag daal dafa daal di ñàkk cinq militants rek lu toll ci juróomi militants rek ci ab nga xamante rek dañ cee daal di ñàkk seen bakkan bu lu toll rek ci cinq personnes ay partisans wu président Adama Barrow loolu nag mu ngi daal di xewee rek ci euh, guddi mercredi jëm jeudi rek fële euh, fi nga xamante rek daal ay kilomètres yu bëri la balaa ngaa ak Banjul accident ba nag mi ngi am gannaaw rek gu ñu daal di démarrer ñoom seen campagne euh, présidentielle ngir jëmal rek élection yi ñu jëm maanaam rek décembre prochain bi waaye nag loolu rek mu ngi amee fële ca suufu Gambie maanaam rek ca base euh, Gambie foofu daal la daal di amee gannaaw rek daal gi ñu demee woon déposer candidature président sortant bi di Adama Barrow ñoom nag seen oto rek dafa daal di dal rek ci beneen oto waaye tamit juróomi doomu aadama yi ci daal di ñàkk seen bakkan rek yemuñu foofa waaye tamit am na ñeneen ñi nga xamante ni tamit nañ ci ay gaañu yu euh, mucc ayib te sax ñu ngi ci hôpital yu gën a jege